Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mardi 6 janvier 2024 sur la chaîne des grands événements suñu une Côte d'Ivoire Daniel théâtre national Daniel Sorano Guinao Binga Khamantini, Kinga Khamantini, moi président de la république Macky Sall jël décret daal nommé directeur général de Sorano dit Ousmane Baro john Guinao Lolounak, le ministre de la culture nommé Kinga Khamantini, moi Omar Diaw dit le communicateur traditionnel euh, des Amériques muy ensemble lyrique de Sorano pour que mu jité ko waye ki di directeur général bi di Ousmane Baro Dione dafa melni dal dafa bañ li nga xamanteni moy nomination Omar Diaw Seck lu waral lolu en tout cas muy lu doy war ginnaw bi nga xamanteni activisme am yëpp dafa débordé wu jëm ci ki nga xamanteni moy directeur général bu théâtre national Daniel Sorano di El Ousmane Baro Diène ginnaaw loolu nag biñ ko accusé dal ginnaw bi installé ben malaise ba nga xamante mi ngi koy indi fofu ci famille bi nga xamanteni moy compagnie théâtre national Daniel Sorano muy antenne bi nga xamante journal bi nga xamanteni ni braqué na fa lépp dafa jëm ci ay niveau jëm ci boulevard de la république mi ngi décrire dal lepp li nga xamanteni ben situation la bo xamanteni bu outracisme la jëmele ko ci ki nga xamanteni moy ben victime bok ci pensionnaire ñi nga xamanteni moy compagnie bi en l'occurrence du kenn ku dul Diaw sek ñu xam ko muy un grand communicateur traditionnel ñu xam ko fofu ci New York ñi gis ni ko lu bare sous président de la république Macky Sall ñoy fofu ci États-Unis mom moy jottali les yi ki nak ginnaw bi nga xamanteni afam avalu ki nga xamanteni moy autorité yi notamment suñu sukkandikoo ci ki nga xamanteni moy ministre de la culture docteur Aliou Sow ginnaw bu mu porter li nga xamanteni moy théâtre euh, ci bopp li nga xamanteni moy ensemble lyrique traditionnel bu compagnie théâtre national Daniel Sorano pour que ñu nommé fa ki nga Omar Diaw Seck depuis le 29 septembre 2023 jagleel ko lettre mu doonoon benn lieu boo xamante place la jëm ci rencontre bo xamante le 2 novembre qui di Elage Ousmane Baro du di euh, deful dara lu dul bañ a trouver li nga xamante ni proposition bi nga xamante Omar Diaw Seck jagleel nañ ko poste bi nga xamante conseiller technique Madame Dal mu chargé wu ko lépp lu jëm ci coopération ak ben contrat de prestation bo xamante de service lay en tout cas muy loo Dal, nous daal ñu koy honoré bu baax a baax ginnaaw bi nga xamante ni di directeur général Sorano dañ ko nommé par décret kon ministre de la culture Aliou Sall su jëlee beneen décret nommé beneen doomu Sénégal foofa ca tête ensemble lyrique bu Sorano warul def dara lu dul exécuté waaye du moom moo koy naan poste bi bu ko jël dama ko bëgg a jox keneen ba noppi yow nga ñëw ma def la conseil technique pare defal la benn euh, contrat bo xamanteni prestation de service lay doon en tout cas xamuñu une dictature lañ nekk wala nekkuñ dictature mais qui nga xamanteni moy directeur général di Sorano indi dafa dal ben zizani zizanie fa ben malaise bi nga xamanteni dafa bañ respecter li nga xamanteni moy nomination qui di Omar Diaw Seck te kiko nommé du ken kudul ki nga xamanteni ministre de la culture ak qui nga xamanteni momit président de la république moko nommé par décret nim fa togué est-ce que directeur bi fa nekkoon bi ko nommé su ñëwoon ne ko yow bul jël poste bi kay mo nommé la est-ce que dina ko nangu en tout cas nit ku nek war nga xol ngay defaat moo tax tey nee nañ jarul dara ñuy wax ki nga xamante ni Omar Diaw Seck amul dara loo xamante accepte accepte na ko jëm ci proposition yi nga xamante ne correspondre wul benn yoon ak lii di recommandation yi nga xamante autorité supérieure yi jël nañ ko jëmale ko ci ki nga xamante ministre de la culture du docteur Aliou Sow ginnaaw moom personnellement bu mu câblé lépp loo xamante ni dafa concerné pour informer lépp loo xamante ni tey mën décision bi nga xamante ni ci président de la république de jël

du dal di permettre voyager à travers le monde notamment fofu ci États-Unis dem ci Europe dem ci Afrique ba nopi d'aller di finir pour installer ou pendant 20 ans à partir de 1996 fofu ci États-Unis d'Amérique plus particulièrement chez New York pour continuer lépp lo xamanteni dafa jëm engagement d'un jëm ci monde li nga xamanteni moy théâtre de la culture jëmele ko ci Yankees yi ba nopi diriger di diriger lépp lo xamanteni moy radio communautaire fofu ca New York ginnaw bu mu créé ensuite li nga xamanteni ensemble instrumental bu Afrique composé wu ay artistes yo xamanteni dañ qui ci lu le ci ñaar fukki réew ak juróom-benn ci Afrique mu doon benn ensemble boo xamante ni tey mën nañu jàpp nañu lépp luy continent américain bi pour effectuer ay prestations yoo xamante ni ci ñoom bokku ci ba tey foofa États-Unis qui dit Omar Diaw Sek mom ci bopam dafa illustré comme un promoteur culturel qui bi nga xamanteni les plans xamanteni ay artistes sénégalais notamment qui dit kindelam Lam kii di Doudou Ndiaye Mbeng qui di Ndiolé Tall qui di Abou Thioubalo qui di Xaar Mbey Madiaga qui dit Acha Soda Mama Fall dit di Juga Dieng Fatou Lawbe ba ci Moussa Ngom ñom ñep séjourné nañu ci pays Oncle Sam bobu grâce à ki nga xamanteni tay moy qui est devenu le promoteur et expert traditionnel di Omar Diaw Sek ginnaaw lolu nak ci la incorné malgré si nga xamanteni ne mooy séjour am ci Amérique si la continuer di liggéey ci kaw ki nga xamanteni moy théâtre national Daniel Sorano ci biir loolu nak atum 2016 ci la réalisé notamment li nga xamanteni moy mooy dembu ak tay ci benn temps boo xamanteni kii di directeur général bi fa ne di Abdoulaye Koundoun ak yeneen spectateur yoo xamanteni yu célèbre euh, yoo xamanteni ni ku ci mel ni Alioune Mbaye Nder ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen ñoom daal dal dinañ enflammé foofu muy un l'homme prédirigé jëm ci respectable ñu xam ko bu baax a baax kii di Ousmane Baro Diène nag moom dafa bañ lépp loo xamanteni dafa jëm ci nomination qui dit di Omar Diaw Seck ci bop li nga xamanteni moy ensemble lyrique traditionnel ginnaaw loolu nak suñu continue ci ñu ay source qui dit Omar Diaw Seck dina organiser ben conférence de presse khamis bi pour dénoncer ben situation bo xamanteni jamono ji mën nañu xam que lepp lu jëm ci version bi nga xamanteni moy patron Sorano essayé nako dal pour joindre mais ken mënu ko jot ci soirée bi nañu n'est ni que daal que kii di Ousmane Baro Dieng dina del soit ci ay meilleurs sentiments yo xamanteni concernant concerne en tout cas muy ben climat de tension de malaise bo xamanteni qui dit directeur généralu Sorano di Ousmane Barodion, mom dal dafa bañ li nga nomination qui dit Omar Diaw qui ci bop li nga xamanteni ni ensemble lyrique traditionnel bu théâtre national Daniel Sorano bi nga qui dit ministre de l'intérieur de la culture docteur Aliou Sall nommé na ki Omar Diaw Seck directeur général Sorano nak dafa wo Omar Diaw Seck ne ko dama bëgg nga bayyi poste bobu ma jox ko keneen yow nga ñëw ma def conseil spécial té loolu la Omar Diaw Seck bañ motax Omar Diaw Seck dina amal Al taskatu yi khamis bi pour dénoncer des pratique boo xamante ni bu malsaine la en tout cas nit suñ la falee ci bopp direction jël keneen fal ko fa jox ko postam ndaxte du yow yaay diriger sénégalais yi joxuñu la benn décret pour que nga fal ma Samba wala nga fal ma ba dañ la fa fal kon donc daal en tout cas Omar Diaw Seck su defee point de presse am je crois que kii di directeur général Sorano war na del soit à de meilleurs wala président Macky jëlaat décret daal di koy dégommer xam ne que kii respecté wul charte réew mi